بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi comme niñ ko xamee ñoo ngi ànd ak yéen ci darsu siira tey ñuy jël ad durus al mustafada min ghazwati xunaynin ay leçon yu ñu war a jëriñoo yu ñu war a tiire jàngat ci xare boobu tudd xunayn nga xam ne tomb yooyu war naa bëri trop waaye dinañ ko tënk rek incha allah tënkal leen ko ci tënk bu gaaw ci juróomi tomb bu ci njëkk mbokk jullit yi atawakkulu ala allahi subhanahu wa taala war nañoo jàngkat ne xaswatu xunayni jullit ñi war nañoo cee jàng jële ci ne wàkkiirlu ci yàlla rek moo wóor wàkkiirlu ci yàlla mooy dëgg wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasb ku wàkkiirlu ci yàlla yàlla doy la wa alallahi falyatawakkalu in kuntum muminin bu dee way gëm ngeen wàkkirlu leen ci yàlla tabaraka wa taala rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla ñun de ci yow la ñuy wàkkirlu ci yow la ñuy dellu yow yàlla sunu ndimbal yaakaarun ko fenn fudul yow kon war nañu jàng ci xaswatu Hunayn ne wàkkirlu ci yàlla jàpp ci yàlla moom mooy liy dëgg waaye war nañ cee jàng wal iftiqaaru ilayhi mooy wane ak sunu ñàkk sunu tële ci wetam moom yàlla wan ko ne mooy ki mën mooy ki am wan ko ne ñun amunu mënunu taqunu loolooy li dëgg ñaareel bi loolu war nañ ko cee jàng war nañ cee jàng adamul igtiraar bil katharati l adadi bi katharati l adadi war nañoo jàng bu baax a baax ne bañ a waru ci nombre walla ci lim walla ci doole fenn fudul ci yàlla tabaraka wa taala dañoo wakkirlu ci yàlla wane ko sunu ñàkk ak sunu doyadi waaye bañ a waru ne tey am na nu mbooloo mu bari rek nooy gañe kenn du nu mënal dara di ko wan ne am na nu ay arme di ko wan ne jullit yi bari nañ ah déedéet keroog ba jullit yi defee loolu borom bi tabaraka wa taala wàcc na ci alquran yàlla wane na keroog ba gaa yi dem mbooloo ma nu àndaloon yéem na leen torop ba nu naan tey day kenn du nu mënal dara tey day ndam li ñoo koy jël ci suratu tawba aaya 25 borom bi ne laqad nasarakum allahu fi mawaatina kathira wa yawma xunaynin id ajabatkum katharatukum falam tugni ankum shay'a wa daaqat alaykum al ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin borom bi ne yéen xam ngeen ne yéen jullit yi yow muhammad alayhi salaatu wasalaam yaag sahaaba yi nga àndal xam ngeen ne dimbali naa leen fu bare bare bare bare bare laqad nasarakumullah fi mawatina kathira yàlla dimbali na leen ci ay barab yu bare bare bare bari yoo xam ne ndimbal yàlla moo feeñ waaye xam ngeen ne du yéen yéen a fa def dara waaye yàlla moo leen dimbali mu ne wa yawma xunayn benn ngi ni keroog ca bisu xunayn keroog ba leen seen mbooloo yéemee seen mbooloo mi yéem leen seen doole yéem leen seen bariwaay yéem leen keroog day loolu seen mbooloo mi di leen yéem seen doole di leen yéem falam tuxni ankum shay jëriñu leen dara ndax dóor nañ leen ba ngeen daw li suuf si di yaatu yaatu yaatu yaatu wa daqat aleykumul ardu suuf si xat na ci yéen bi ma rahabat li muy yaatu yaatu keroog suuf si xat na ci yéen ngeen daw summa wallaytum mudbirin ngeen bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom kenn mu ne cundum taxaw kon nag li rëy li ñuy njëkk a jàng mooy jàpp ci yàlla daal mooy dëgg ndax lu dul yàlla moom neen la yàllaay dëgg mooy njëkk moo mujj yàllaay borom kàttan mooy borom doole doomu aadama amul taqul yorul mbooloo jëriñul dara lu mbooloo bari bari bari bari yàlla moo leen ëpp doole kon loolu danañ ko ci jàng mbokk jullit yi ñaareel mooy anna nasra bi yadillahi jalla wa ala ndimbal ci loxoy yàlla la nekk jullit ñi bu ñu bëggee ndimbal nan ko sàkku ci yàlla wa man nasru illa min indillah te wa in tansurukum allahu fala gaaliba lakum wa in yansurukum allahu fala gaaliba lakum bu leen yàlla dimbalee kenn mënu leen a jëriñ kenn mënu leen a lor yàlla rek te ndimbal du bàyyeekoo ku dul ci yàlla tabaraka wa taala loolu tax yàlla xamal leen loolu ne leen anna nasra bi yadillahi jalla wa ala ndimbal a ngi ci loxoy yàlla nekkul ci mbooloo mu bari nekkul ci waruwaay nekkul ci arme nekkul ci takkaay nekkul ci njiit waaye ndimbal ci loxoy yàlla tabaraka wa taala la nekk ku bëgg ndimbal na ko sàkku ci borom bi tabaraka wa taala ñetteel al ibtilaa wa tamxiis wa taadib min allahi li ibaadihi nanu jàng jële ci tomb yi ay leçon yu rëy yoo xam ne dina ci bokk nattu ak segg ak yar chaque jour yàlla daf koy utiliser ci kaw jaamam yi yàlla dina indi nattu pour xool ñen ñoo gëm alif lam mim ahasiba nnaas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax da ngeen di wax ne gëm ngeen rek man yàlla ma bàyyi leen noonu nangul leen seen gëm te nattuwuma leen xawma ana ñan ci yéen ñooy gëm ñan ci yéen ñoo wax dëgg déedéet saa yu ngeen ne gëm ngeen man yàlla ma daldi indi sama nattu pour ma xam ana ñam ana ñan ñoo ñi gëm li yaalama allahu alladina sadaqu wa yaalama allahu alkaadibin ngir yàlla xam ñi dëggu waaye yàlla xam ñi waxul dëgg mooy al ibtila wa tamxiis segg yàlla tameem la yor su nit ñi ne gëm nañ yàlla indi tameem segg xool ndax dëgg la ana ñi woote gëm ana ñi ne ñoom ñoo gëm ana ñi ne ñoom yàlla subhaanahu wa taala mooy seen boroom ana ñi bëgg dee ngir yàlla ana ñi taxaw ci sànci allahu subhaanahu wa taala pour jàppale ko pour dimbali ko loolu moo tax mu ne ndimbal ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo kenn moo tax yàlla subhaanahu wa taala indi nattoom indi tameem di segg waaye yaram pour jaamam yi nga xam ne ñoom ñoo wax dëgg la ñoom ñoo wax gëm nañ ko inna allaha iza ahaba qawman ibtalaahum yàlla bu in bu bëggee ay nit da leen di nattu yàlla indi na nattoom keroog ñu dóor leen gaay la ñu bari bari bari bari daw nañ ba bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu leen di woo naan leen ñëw leen man maay yonent bi man la yàlla yónni man maay muhammad ibnu abdul muttalib ñëw leen ñeenteelu tomb mbokk yi sabaatu nabi mooy sax gi yonent bi sax alayhi salaatu wasalaam wa sujaatihi xoola mbooloo mi li ñuy toll toll ñépp a daw ba mu des yonent allahu akbar mooy ki doon woote naan ñëw leen maa ngi nii maay yonent bi man la yàlla yónni maay doomu abdul muttalib dinaan diw diw di jaar ci seen tur ñoom ña dawoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom kese sax moo lay won ne moom la mu nekk dëgg la yàlla ko yónni njàmbaareem fokk natt wees na ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax lépp lu muy digle moo ciy jiitu xare bi mooy nekk ci kanam da ngay gis tey ay kilifa diine yoo xam ne lu ñuy digle ñoom ñooy nekk ci ginnaaw ñoom duñ def dara même bu ñuy tànt baas bi sax même bu doon baasu diine la ñoom dañuy tànt baas bi ba teg fauteuil bi mu ñëw toog am amma sallallahu alayhi wa sallam moom moom ca kanam lay nekk lu muy woote lu ne lu muy santaane lu ne moom sang bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy nekk ca kanam jiite ko keroog ca jàkkaam ja bañ koy tabax sax moo jiite woon ña yenu birig ya di indi gaa yi di tabax juróomeel mooy dellusi gi nga xam ne sahaaba yi dellusiwaat nañ ci yonent bi wa rujuuhim ila nusrati lxaq dellusi gi nga xam ne yonent bi woo na leen ñu dégg kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu dellusi ci dimbali dëgg wa haza min fadlillahi alayhim loolu day ci xéewalu yàlla yelu leen yàlla defal la mooy ñu tiit deltu ginnaaw yonent bi woo leen saxal leen ñu daal di dellusiwaat ndax dimbali dëgg kama qaala taala comme ni ko yàlla waxee summa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba allazina kafaru wa zalika jazaau alkafirin summa yatuuba allahu min baadi zalik ala man yasha wallahu gafur rahim borom bi tabaraka wa taala wax na ci suratu tawba 26 27 borom bi ne ginnaaw loolu ba ñu dawee ba ñu tiitee jàq yàlla subhaanahu wa taala wàcce na ak dalam ci yonentam ak ci way gëm yàlla yi yàlla wàcce na ay soldaar yoo xam ne ñoom sax keroog gisuñu ko soldaar yooyu lu tax ñu wàcc pour mbugal yéeféer yi yàlla nee na ab yéeféer moom loolu rek mooy fayam mooy mbugal ko àdduna mbugal ko àllaaxira waaye su maya tuub ginnaaw loolu yàlla nangu tuub moom yàlla tabaraka wa taala min baadi zalik ala man yasha ca ñi nga xam ne ñoo ko neex te mooy jullit ya na ngeen yëg ne wallahu gafur rahim yàlla mooy borom yërmande yàlla mooy aji njéggalaakoon bi lii xéewal gu réy la bu yàlla tabaraka wa taala defal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ak sahaaba yi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon nga xam ne ñu ngi ci xare tiit jàq borom bi tabaraka wa taala ne man yàlla maa leen wàcceel dal summa anzala allahu sakinatahu sakinatahu ala rasulihi man yàlla maay ki wàcce dal ci sama yonent waaye wa alal muminin ak way gëm yi kon nga gis ne li ndimbal gu réy la jullit yi jàq tiit yonent bi nekk ci njàqare yàlla subhaanahu wa taala wàcc ci ñoom ak dal yemalewu ko ci yonent bi waaye ak way gëm yàlla yi àndoon ak yonent bi beneen xéewal gi mooy wa anzala junuudan lam tarawha mu wàcce sax ay soldaar ay malaayika yoo xam ne yàllaa ko wàcce pour ñu aar yonent bi aar way gëm yàlla yi ndax keroog situation bi metti woon na keroog kon yàlla wàcce na armée boo xam ne day dimbali armée islam bi waaye wa azzaba alladina kafaru armée booyu lu tax ñu wàcce leen pour ñu mbugal yéeféer yi ndax yàlla nee na wa zalika jazaul kafirin lii mooy fayu yéeféer ab yéeféer moom àdduna ak àllaaxira yàlla amul lu mu séq ak moom lu dul mbugal waaye thumma yatuubu llahu min baadi dalik ala man yasha ginnaaw ba yàlla indee natt yu yépp muy natt yu rëy ginnaaw loolu nag yàlla dina nangu tuub ci way ci ñi ko neex te mooy way gëm yàlla yi ñu yëg ne ñoom way gëm yàlla yi am nañ buur boo xam ne gafuurun day jéggale rahimun day yërëme ku ko tooñ ku ne ku tarxiis ku ne ku jàdd ku ne bul découragé laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia bu leen découragé bu leen naagu bu leen yàkkeeku dellu siwaat leen ci seen borom yàlla day jéggale bàkkaar yépp ndax moom yàlla xafuuru rahim kon gis ngeen doomu ndey yi juróomi tomb yi ëpp na ko sax waaye yii ñoo ëpp importance yii ñoo gën a rëy ci xaswatu xunayn yoo xam ne ab julit war na ko ciy jële bu ci njëkk mooy tawakkulu alallah jàpp ci yàlla ñaareel ñu xam ne an nasru bi yadillah ndimbal ci loxo yàlla lay bàyyeekoo ñett ñu xam ne yàlla day nattu yàlla day segg ba xam ñan ñooy ay jaamam ñeenteel ñu xam ne yonent bi jàmbaar la yonent bi ku ñeme la ndax xeex bu ñu mës a dem suñu dawee moom mooy taxaw te xeex bi moom mooy nekk ci kanam ñu xam ne saxaaba yi tamit ñoom it ñu baax lañ keroog ba leen yonent bi woowee dellusiwaat nañ dellu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw pour dimbali dëgg ba yàlla subhaanahu wa taala wàcce ci ñoom aaya ne yàlla subhaanahu wa taala jéggal na leen yàlla yërëm na leen mbokk jullit yi ci tënk ci gàttal lii mooy njëriñ yoo xam ne tomb yoo xam ne mën nañ ko jëlee ci xeexu xunayn ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp jéggal ñu njumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu